di nuyu mbooleem wa Sénégal di leen ndokkeel ci xew-xew bu màgg bi nga xam ne ci lañ nekkoon te génn ci ci jàmm te balañ koo tàmbali dëgg-dëgg oote woon nañ senegal yépp ñi voté ci jàmm waaye oote woon nañ tim ñaan ci ndigali alxalifa cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass xalifa saaxibil fayda woon nañ taalibi yëpp ñi ñaan yàlla ñi dugg ci wate bi ci jàmm génn ci ci jàmm nañ ko ñaanee woon tim ñaan yàlla mu may ñu bu ñu watee rek nit ñi xëy delluwaat ci liggéey yi ñu ngi sant yàlla ba nga xamee ne yàlla defal nañu loolu comme niñ ko ñaanee woon te dañu tim di continuer ci ñaan yooyu pour Sénégal lépp ñi ngi ndokkeel peuple Sénégal yépp ci vote bi ñi génnee ndax ñi gañe ak ñi gañe ñépp ñoom ñépp ñoo bokk gañe parce que ñoom ñépp ñoo d'accord ci système bi nga xam ne nii moom mooy fal di folli kon système boobu ñu d'accordoon mu génnee résultats yi ñu am tey kon résultats yooyu ñépp ñoo ko bokk Sénégal yépp ñoo ko bokk kon dañuy ndokkeel Sénégal lépp ndax comme niñ ko waxee woon àddina yëpp ñu ngi doon déglu Sénégal mi nga xam ne óolu nañ ne eh, réew mu màgg la ndax xel yi màgg nañ xam nañ fu seen maslaa nekk xam nañ tim fal ak folli mooy lan def nañ ko ci li nga xam ne moom la àddina bi doon xaaree ci Sénégal mais sénégalais yi nga xam ne tim bëgg nañ seen réew loolu lañ doon ñaan kon ñu ngi ndokkeel mbooleem Sénégal ci niñ voté ci yar ak ci dal bañ am résultat yi nga xam ne moom lañ am tey buñ paasee loolu ñu ngi ndokkeel président Macky Sall mi nga xam ne moom it yàlla dimbale na ko Sénégal óolu nañ ko fal ko mais Sénégal tim delluwaat nañ ko kóolu googu nga xam ne palte la waaye en bu mag la responsabilité bu rëy la ndax dénk nañ ko réew mi adiñ ko ko dénk yépp mu ñëw voté haat réew mi wan ko ne ko óolu nañ ko ba dénk ko liñ ko dénkaat dénkoon démbu ñu ngi koy ndokkeel ci loolu di ko ñaanal yàlla yàlla may ko mu jik sénégal beneen yoon maytim sénégal mu jikkoo waaye ñu ngi koy ndokkeel beneen yoon ci génn bi mu génn taalal loxoom ni mu ngi eew eh, mbooleem sénégalais yi pour ànd ak ñoom liggéey muy opposition bi ànd ak ñi nga xam ne sax ñoo fi jiitoon démb pour jëriñoo seen xam-xam ak seen xereñ ñi ngi koy ndokkeel ci loolu di ko encouragé ci loolu daf ñuy may ñi fàttaliku loo xam ne suñ benn maam mas na koo wax président Senghor dafa waxoon Senghor ne ko président réew mi ñaari doomi ndey lañ ñii dañoo wax ne baax nga ñi ànd ak yow ñii ne baaxoo ànduñoo yow léegi nag yàlla fal na la fexeel rek ba ñu waxoon ne baaxoo ne baax nga mais loolu defe naa ne président Macky Sall yomb na koo digal ndax déggee naa ci waxam luy tegtale loolu ne 42 pour cent yi nga xam ne wateeluñ ko dana jàngaat moom ci biir lan lañ mer ak lan lañ bëgg kon tim loolu dañ ko ci ndokkeel bu mu tàllalee loxo mboolem opposition bi mais ñi ngi oo mboolem sénégalais yi ñoom tim ñi nga xamne ne bëggoon nañ réew mi diko ut gëm nañ ne ñom ñëpp ku ci nekk da nga éné réew mi lu baax ku ci nekk da nga am sa xam-xam bo xamne ne moom nga óolu ne buñ la joxé Sénégal man nga ko défar man nga ko yok xam-xam bobu nak kum wër ci yow rek war nga mëna and ak ki fi yàlla ndax nguur yalla mo koy joxé and ak ki fi ñi and liggéey Sénégal ndax réew benn ni di ko liggéey ñaari nit di ko liggéey président moo ci ëpp en mais bu fekkee ne ku nekk fi nga toog yaa ngi def sa wareef bu boobaa la ñuy am Sénégal nga xam ne borom xel yu baax yépp moom la ñuy gént borom ñaan yépp moom la ñaan ñi ngi sant yàlla mi nga xam ne dëgg-dëgg liñ ko doon ñaan may nañu ko ñi amee ci yaakaar ne li des ci ñaan yépp tim moom yàlla dana ko nangu mooy Sénégal continuer di am jàmm sénégal continue di am naatange kifi yàlla tegtim yàlla dimbale ko ba mu mën a réaliser li nga xam ne moom la sénégal yi di gént ci kaw loolu tim ñu ngi dellu ci turi sëriñ bi di gërëm mboolem waa pay bi mboolem waa xadra bi ndax liñ leen dénkoon moo ñu sàmmwanteeg yar ak teggin ci bés yi nga xam ne bés yu jafe la pour maitriser sa bopp waaye gis nañ ne ñëpp sàmmante nañu ak loolu bañ àgg ci bés yi nga xam ne ci lañ àgg moo tax ñu ngi sant yàlla di wax alhamdulilahi awalan wa axiran zahiran wa batinan waaye beneen yoon tim ñu ngi ndokkeel président ci turi xalifa bi ci suñ tur ci turi mboolee mi sénégalais yi ñi nga xam ne nii gëm nañ démocratie ndax démocratie rek moom moo feeñal boppam ñi ngi koy ndokkeel ci loolu di ko ñaanal yàlla yàlla teete ko téye ci loxoom yokk ko xel boole koog ñoo xam ne nii dañuy ànd ak moom pour liggéey ñi jëm ci Sénégal boo xam ne nii ca kanam la jëmee nit ñi Sénégal yi xam-xam Sénégal yi wér Sénégal yi koom-koom Sénégal yi jàmm Sénégal yi bëggante Sénégal yi ànd dimbalante Sénégal boo xam ne nii ñëpp ay doom doomi ndey lañ ay doom doomi baay lañ bu boobaa ñi ànd sauver suñu réew bi nga xam ne nii nañ ko waxee woon ca commencement ba mu ngi mel ni li yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne mooy diine ji ñi ci nekk mu ngi mel ni ñoo xam ne ñoo bokk benn gaal gaal gi ñoo ko bokk ñi nga xam ne dañoo nekk ci kaw wax ne léegi daal pour ñiy ut ndox di jaar ci ci ñi ñi nekk ci suuf ne bu ñuy soxla ndox di jaar ci ñi ci kaw dañuy sonal dañ leen di sonal te ñi bënn rek suñu wàll ci gaal gi buñ buggee naan dem direct jël ci ndox mi buñ leen bàyyee pour ñu def loolu gaal gi dafay suux ñoom ñëpp ñu alakondoor buñ téye ci seen loxo tim ñoom ñëpp ñu mucc ñoom ñëpp ñu ànd mucc ndoor yal nañu yàlla may Sénégal goo xam ne ñëpp mooy ànd mucc yal yàlla defal président tew tawfiq yàlla moo koy maye yàlla dolli ko leeri xel ak loori leeri xol yàlla dolli ko tim tolérance koo xam ne nii dana gëna a attan ñëpp ñi ko bëgg ak ñi ko bëggut ñi ko nangul ak ñi ko nangul nangulut ba ëllëgee ay résultat am dana tax ñëpp wax ne kii nii ñi yaakaaroon ci moom ba fal ko ñun ñi ko yaakaarutoon dañoo amoon xalaat bu juum ci moom waaye ay résultat am wane na ne ndeke ñëpp moom la waroon a ànd ak asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa